di sëriñ Moxtaar mu Cheikh Mahmoudan di jaare ci moom di siyaar mbooleem njabootu dëkk bi yépp ak mbooleem mbokk yi nga xam ne ñoo teewe jataay bi yépp di ndokkee bu baax itam sama sëriñ sama mag sëriñ Xadim moom Cheikh Mouhamadul Moustapha Xafsa def waxtaan bu am solo woo xam ne ku ko teewlu mën nga cee jële njariñ loo xam ne boo ko jëfandikoo dina la jariñ ci àdduna dina la jariñ ci àllaaxira sëriñ xarit di jëmm joo xam ne lii mu doon waxtaane royuwaay la ci sëriñ Saaliku Mbakke yar ko waaye woyof ak mbaax ak lewet ak yaatu yooyu moom li xam ci moom mooy royuwaay la ci kon bu ñu ko joxee thème bu mel nii loolu dana ci mën a wax lu ñëpp dégg li mu doon waxtaan nag mooy jikko jikko moom mooy lépp ku ko am am nga li gën a jafe ci àdduna ndax diine ak jaamu yàlla yépp li muy defar ci nit weesuwul jëmbat ci moom jikko ju rafet rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom dañoo xamal ne da ko yónni ngir mu tasgiye leen ngir mu jëmbët ci yéen jikko ju rafet maanaam génn ci mbool ci yéen mboolem jikko yu ñaaw yi dugal ci yéen mboolem jikko yu rafet yi yonent bi sax dara wax ne innama bu'ithu li utammima makaarimal axlaaq damaa ñëw ngir mottali si jikko yu rafet yi ba tax na jikko mooy lépp waykat ba dafa wax ne wa ida usiba alqawmu fi axlaaqihim fa aqim alayhim mëtaman wa awila nee na aw xeet aw askan suñu amee jafe-jafe jikko nee na xeet woowee na nga leen dëjël te xam ne xeet woo moom ci nax ci ci ci yàqu lañ jëm ci naax saay lañ jëm jikko mooy téye aw xeet askan wii di askanu mbakke di dañoo nekkoon njaboot bu barkeel bu amoon ay jikko yu rafet looloo tax yàlla baaxee leen Sëriñ Tuubaa feeñ ci ñoom jikko yooyee nag li fekk mi ngi fi mbaax di fi des li ñu doon yaakaar ci ñoom lépp it di di wéy nam doon demee waaye bu fi jógee rek dara desatu fi gis nañ jikko mooy nattuwaay bi fi ne nattuwaay bi ci diine mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la suñu borom royloo nga xam ne loo ko gën a jege gën ngaa jege ni suñu borom bëgg ab jaam mel ni te rasulullah yi suñu borom ba nga koy tagg tëggiwu ko alal ju bari wala askan wu rafet wala jaamu yàlla gu waaye jikko la ko tagg la ko taggee wa innaka la ala xuluqin azimin moo tax yonente bi daa wax ne aqrabukum minni majlisan yawmal qiyaama axaasinukum axlaaqan ki may gën a jege mooy ki gën a rafet jikko lu sa jikko gën a rafet nga gën a jege rasulullah sallallahu alayhi loo gën a jege rasulullah it yaa ngi gën a jege suñu borom yaa ngi gën a jege ak mat akmalul muminina imaanan am na fu mu wax ne akmalul muminina imaanan axaasinukum axlaaqan kon jikko day lu mënta ñàkk rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mas nañ ko wax ne ko soxna su baax soo xam ne day jaamu yàlla di def ay naafila yu bari waaye nag aw làmmiñam la téewul day jëw ak di tuxali wax yonent bi ne kookee sawara la jëm ak la muy def lépp ci jaamu yàlla ñu waxaat ko jeneen soxna soo xam ne moom jaamu yàlla am bëriwul dana julli rek farata waaye nag aw làmmiñam téye na ko ba du wax kenn lu ñaaw mu ne kookee aljana la jëm loolu day wane ne kon jikko mooy nattukaay bi mooy li nga xam ne mënta ñàkk ci doomu sëriñ bu mag bii borom Daaru Muxti daa daa wax ne xar baaxam ak yéemeem lu ñëpp seetlu lu ñëpp gis la waaye bari na ñoo xam ne li ko booleek ñoom jikkoom la Sëriñ Tuubaa gis nañ tubaab yi fi ñu jaar ak moom juróom-ñaari at lu topp ca géej ga ñu téye ko fa ci loo xam ne ak tooñ nga xam ne defu leen dara ñëwaat ci réew mi juróom-benn weer la fay am ñu yóbbu ko gànnaar mu def fa ñeenti at foofu itam ci tumuraanke bu metti la fa nekke woon mu ñëwaat ci réew mi gis nga ñu yóbbu ko fële ca Jolof résidence surveillée dañ ko defoon ca Jolof ak ca njaareem fukki at ak juróom te teewul dafa wax ne jégal naa leen afawtu an al aadai turran li wajhi man nafaahum li gayri sarmadan lastu adfahu afawti li wajhi llaahi ma safwi kalkali mooy xol bu sell bu set xol bu bu sedd laa leen jéggal loolu jikko rek moo ko man loolu nag moo boole nit ñi ak Sëriñ Tuubaa boroom Daarul Muxti mi itam loolu rek moo ko boole woon ak nit ñi naar ba dafa wax ne a cheikhu ibrahimu laa yatawaara an dayfihi abadan wala yatamaara dafa wax ne man ñëw naa fi waaye moom du daw gan te du nekk di werante itam borom xam-xam la ko yaw la itam moo tax amutum kem loolu rek nga gis moom lañ ko ko tagg yépp nga gis moom moom lañ ko doon tagge kon ci ko daal mooy li mënta ñàkk ci doomu aadama te kenn ku ne war koo fexe noo ci sëñ bi wax na jumtukaay yi ñu koy amee bokk na ci tërbiya ruuxiya dañ ko nee na lool te mënta ñàkk ci doomu nit ki faw ñu tërbiya ko lu ko mooy faw mu desee yenn te jikko ndax doomu aadama moom buy doog a gane àdduna day set mook ndab loo xam ni lu set wecc lay doon kullu mawludin yuwladu ala alfitra fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi ndax lu set lay doon booy gane àdduna waaye nag environnement bi ngay dund nii ñoo la yàq gone gis nga gone bu judd rek balaa am ñaari at ñu tàmbali ko jàngal fecc xew yi gën a am solo fi ne sunu xew ay ngénteeg yooyu gis nga fecc lañuy ñuy def ak way ak tëgg ak yu demee noonu xam ne yow nit daa ñëw gane àdduna muy xéewal koo xam ne ci war a sant yàlla waaye gis nga yeneen la def kon yar lu mënt ñàkk la ci gone yi ak itam tërbiya wax yi itam bi nga xam ne dañ ko daa def di jox sëriñ si nga xam ne ñoom yàlla da leen def ñu mën a yar nit ñu leen jox gone yi ñu leen di tërbiya loolu lu mënta ñàkk la ngir génn ci ñoom jikko yu ñaaw yi dugal ci ñoom jikko yu rafet mag ñi loolu rek moo leen wutale woon ak ak ñeneen ñu may ñoom gis nañ ci misaal rek ku mel ne sëñ Mahmoud Mbeg rek mii nga xam ne soriwul fii nga xam ne ca ñi njëkk ànd ak sëñ bala bokk dañoo wax ne benn bis sëñ bi da koo am fu mu ko yónni mi ngi ngàndaayam am ku ko dogale di nongu booba alal ji mu yor waaye jëflante wut ak moom dara da koo bàyyi rek ba mu del see sëñ bi ne ko xanaa yore woon ngànnaay la mu ne ko booba dama merul moo tax bu ma meroon génne ko xam nga nangu nañ ko ba jël ba nar a jël alalam te taxul mu mer fi ne léeg bu ñuy wax sax ci mag ñi dañuy yaakaar ne lu sori la waaye ci ñii mujj rek fi ne am na keroog sëñ Ngooñ Jeng dama nettali lu am solo ci sëñ Fallou Astu Jeey bi nga xam ne eh, moom ci ñu mujj ñi la sunu waajur yi la wax ne dafa am dayira buñ ko mës a jébbal ca Touba nee na booba ñu nekk fa ne ñu jébbal ko dayira yàlla dogal nag nee na mu ànd ak ngooñ di dugg ci bitig yooyu rek am benn waay boo xam ndëkkate jege na sëñ bi ba tafu ko ba ba génnee alal ji nga xam ne moom lañ ko joxoon muy day rëbal ñu dàq waaji xool xool mënuñu fexe ba gis waaji ngooñ nee na booba nee na maa ngi mer lool tàmbalee wax sëñ bi ni ne ma nan dem bi ñuy dem mu wax sa wër bi ne ko jaaral ci jumaa ji ñu jaare ci jumaa ja bi ñu ba dugg ci biir barabu sëñ bi mu ne ngooñ dama bëgg waajee jël alal joojee nan ko fasal fii ba mu am lu mu jàpp ba dootu jël alal jàmbur loolu mooy jikko loolu nag la yàlla bëgg nag ne fi ne jaamu yàlla yii nii baax na loolu sëñ wax na ko waaye bokkul ak jikko jikko mooy melow yi nga xam ne moom la yàlla bëgg ci doomu aadama woyof lu lu la ci jamono ji te woyof moo sañcoon ak murit kon waxtaan wi mëne su cee dolli dara adduna nii ko sëñ bi waxee fi ne rawatina jumtukaay yu yees yi nga xam ne tey tuxali wax suñu wax na lu am solo mooy tuxali wax dafa yomb ne nit yónnee la ay waxam ngir sa digganteeg moom nga tuxal ko yóbbu ko feneen loolu mooy rambaaj te loolu yonte bi neen laa yadxulul jannata nammaam kuy rambaaj doo dugg àjjana mukk te rambaaj mooy tuxali wax ci anam gu yàq fi ne ñi nga xam ne yàq nañ leen ci ay wax kay ay kàddu ak yenn wax yu gàtt yoo xam ne du mat sax benn benn minute kenn xamul nu mu toll yàq addunaam te loolu lu mat a bàyyi xel la suñu borom moom lu mat a bàyyi xel loo xam ne fi lay fi lay jeexale dara lu neen suñ tubaab dara wax ne adduna kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waaye def sa bopp loolu la koy dëggal mooy am na lu mu nett li ca silkul jawahir <coughs> ne Seydina Moussa alayhi salaam suñ borom da ko bëggoon a wan maandoom gi ne ko demal ca wetu dex ga nga làqutu te xool te seetaan bi mu demee ci dex gi làqutu ne tuut ne na mu gis benn waay boo xam ne daa ñëw simmi yéreem dugg ci biir dex gi di sangu am xale bu fi jaar gis yére yi mu wisit ko fekk ci ab junni walla téeméer ci ngurdu ci jamono jooju bokk mu gaaw jël ko daw am gumba goo xam ne da doon paramtu ba agsi ci bërëb bi te waa ji génn ci dex bi moom it sol ay yéreem xool gisul lam ca dencoon mu dab gumba gi ne ko yaa ko jël gumba gi ne ko man samay bët gisul mu ne ko da ngay wax rek daal di koy poñe xoj ko ba mu sedd guy ba faat ko Seydina Moussa fa mu ne nee na amatul jàmm waaye suñu borom firil ko ko ne ko xale bee nga gis mu jël alali waa ji waa ji daa liggéey woon baayam waroon ko ca fay waroon ko caa fay ab junni daw nag fayu ko ko xale bi alalam la jël bu bu muñoon dana ko jël ci anam gu dagal waaye ñàkk muñam moo tax mu jële ko ci anam gi waaye baayam waa ji da ko amee loon junni junni ndax da ko liggéey woon waroon ko ko fay te fayu ko ko gumba gii nga gisit bi mu daata gumba moo rayoon bàyyi waa ji itam maanaam suñu borom adduna sépp loolu la koy lijjante moo tax bu la dara jaaxal lu waay def boppam loolu Sëriñ Tuubaa daa mooy li lu waay def rek boppam te mbaax du réer borom mukk bërëb bii ñu toog misaal la ci sëñ bi wax na ko léegi sëñ Mahmoudan bi muy ñëw fii muñ ak fonk ndigalul borom dara moo tax la mu ko joxoon moo ko fi bàyyi waaye tey ku ne xam na ne bërëb bi ku fi teew rek dinga xam ne sunu boroom fay na ko ba mat sëkk noo ngi ñaan yàlla mu taas na ci barkeem maa ngi jégalu bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi jégalu di di jot bi kàddu kàddu kàddu yi daayira bi di wax ci seen tur di di wax ne kàddu yi daal di ko di ko di ko laltaay mooy di am mbégte rek ci mboolem koo xam ne eh, fekkee nga bis bi te teewe ko ak ñi nga xam ne itam amoon nañu yéene teew te yàlla dogal ñu leen sant bu baax ci tur boole ko njabootu sëriñ Mahmoudane gi di di ci di ci di tudd ay tur mooy eh, lu mel ni njabootu sëriñ Moudou Habib moom jaanam bi ak ak itam eh, lenn ci suñu mbokk jam Chance Faye moom it ak eh, délégation fi yabal ñoom ñëpp leen di sant bu yooyu seede ne daal euh, daayira bi daal lenn objectif bi ñu am mooy bu ñu amee chiar bu ñuy wax ne mooy seen chiar mooy euh, Ihya Turaas dundal héritage bu Serigne Mahmoudan ndax comme kenn mënut a wax ci moom te waxoo xam-xam moom buñ koy wax xel yëpp dañuy jug jëm dakk ci xam-xam xam-xam moom mënuñoo waxtaan Serigne Mahmoudan te duñ ko duñ ko tudd ndax ci loolu la doon jëm dundam yëpp ci la ko jeexal loolu moo waral euh, daayira bi mboolem activité yi muy amal ñu jëmbal ko ci luy dundal héritage boobu noonu moo waral suñu jotaay bi ñuy bëgg a amal di ci soññi mbokk mbokki taalibe yëpp rek fu ñu mën di nekk gis nañ ne ñu ngi ciy taxaw baax waaye kuy jàpp rek la ñuy ku jàpp moom kenn du ko soññ kon jàpp bi rafet na lool waaye ñu ngi leen di gën a wax ne leen nañ gën a dëgëral seen loxo bu ndax mbir mi bañ koy def yàlla dafa def dañ ci am ndigal dañ ko defee ci ndigal ki nga xam ne moo fi xalifa sëriñ Mahamad mu ci dugal alalam di ci jàpp ci xalaatam ak itam lépp lu mën ngir dundal activité bi ñuy def kon moom gis na ne am na solo loolu moo waral ñu ngi soñ ñëpp rek ñu ngi soñ ñëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi soñ bu ñëpp bu baax a baax di itam euh, duñ fàtte suñu mbokk suñu mbokk daaru mën naa ji ak sëñ Abdou Rahman ñoom teew nañu seen teewaay am solo lool ndax waxtu bañ ko daree def ba léegi rek ñu ngi ci ànd ak waa kër sëñ Cheikh Nalo bu ñu dee waa kër sëñ Abdou Rahman rek dugg nañ ci ñu ngi leen ci sant bu baax mboolem bu teew daal xëy na lim bi du mën a mat waaye buñ ci juum rek ñu jëggal waaye di leen wax ne day am na jant boo xam ne lott na lool ci béréb ci mboolem ku fi teew ñu xam dañu tudd la ñu ñàkk la tudd donc amuñu a jox xanaa di leen bàyyi ak suñu doom ak itam jëmm ji ñoo seen i mbir bu baax ñu bi euh, yi nga xam ne ñoo féete biir kos moo xam ñi fi la wala ñu génn comme liggéey bi ñëpp lañ koy defar daal daayira bi ñi ngi ñi ngi leen di gën a soññ ci ñu gën dëgër ndax kilifa gi ñu ko seqal muy Serigne Mokhtar wax dëgg yàlla mi ci ciy taxaw bu baax ay ishaaraat yi muy dëkkee di def ay wane ne mi ngi koy euh, soutenir bu baax a baax baax buñ ko waxtu buñ ko dëgmalee ba ñëw waxtaan ceeg moom dajee def ndax ca a def andi ceeg ñun ci lépp kon nag loolu moom am nañ am nañ am nañ ci digal lu bari kon képp koo xam ne rek ñoo koso nga askan xam nag fee bokk wala nga am fi ak euh, nga sopp ko wala lu mu mën di doon wala nga itam nga yëgoon liggéeyam Sëriñ Mahmoud ak li mu liggéeyal lislaam moom ñi ngi leen ci soññ bu baax ñu gën cee ñu gën cee bu baax ndax daal bés la boo xam ne moom wax dëgg yàlla bokk na dafay dafay dundal xam-xam ci koso ndax boroom xam-xam yi ñu ci àndal ko sant bu baax mooy Sëriñ Xalil ndax keroog bi ñu demee bi ñu amee yëg-yëg ba dem wax ko dañoo yëgal ne mbir yitte yi ko fekkoon yépp da ko bàyyi ngir ànd ca ñoom kooku nag wane na ne mbiram mbiram ñu ngi ko ci sant bu baax di sant ñu bañ ko commencé ba léegi mboolem ñu ci àndal dañoo doon ñoo xam ne ku ñu waxal rek di dégg ci ñoom xam-xam di nga amee njàngat bu rëy boo ci mën a amee waxtu wu ne war la mën a jëriñ li tax ñuy def loolu nag mooy. ngir dundal Serigne Mahmoudan mi nga xam ne bañ ko xamee ba léegi luy jëriñ nit rek ci la nekk rawatina lu jëm ci wàllu xam-xam kon nag day mel ne jotaay bi moom dafa mujjee nekk bu mënul ñàkk ci màggal bi waaw bu baax ku ñu fi sa xam taxawaay bu kawe bu daayira bi ne ñooy waxtaan na la sekk nañ di leen wax ne daal jotaay la ñu gën koo tax gën koo dëgëral di ci soññi mboolem ku ci taxaw ak ku ci am yéene taxaw ndax li am solo mooy yéene koo gën a foor jëf am na ci yoo xam ne mënuñ leen fàtte mu mel ne waa association xam ne ñooy association ànd suqali koso nga xam ne mooy seen yitte yëpp mooy rek lu jëmale dëkk bi kanam ñooñu moom leen a fàtte ci lim <clears throat> ak taali bi yëpp rek kuñ lim kuñ lim leen sant bu baax sant bu kawe te te te rëy lool boo xam ne lot nañ sax ci wax ko ne ni mu ni mu demee loolu lott nañ ci bu baax waaye ñu ngi leen ciy sant bu baax di dalal bu baax kilifa yi di ñaan ñu diglu leen bu baax ci teggin tey li ñuy wax ñu jéem cee jàngee te ñaan mu jariñu waxtu bu nekk ñu ngi leen di bu baax di leen di leen di leen gën a dalal bu baax di ñaan ñu waxtaan wi bu baax te yàlla dimbale ñu njëriñ génn ci te njëriñoo ñëpp ci baax suñu wax waaleykum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 nuyoo jullit ak mbokkum jullitam nuyoo taalibe ak mbokkum taalibeem di jégalu bu baax ci kàddu yi ngi teg ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne def nañ ko ba noppi mu mel ni li waraloon jotaay moom àgg na ci àggin woo xam ne si ne ñëpp rafetlu nañ ko ñaan rekk ci waroon topp waaye yëkkati kàddu rek ci turu sëriñ bi ak ci turu njabootu si Maxmadan gépp ngir sant mbooleem ñi nga xam ne ñoo séq mbir mi yépp te mooy njaboot ci maanaam gi nga xam ne ñoo sos ngir mi di ko def ak mbooleem mbokk yi nga xam ne saa yi ñu ko wootee dañ dagg seen yitte yépp ñëw fekk si ko ñu ngi leen di sant ci turu sëriñ Maxtaar ak turu njaboot suñu maanaam gépp ndax day loo xam ne dara ëpp ko solo dañoo toll ci jamono joo xam ne daw jëm ci lu baax ak woote lu baax lu mën a jariñ doomu aadama yi jafe na lool am barab yoo xam ne nag dañ ko fa xamoon yaakaar ko fa di ko fa séentu kon nag képp koo xam ne yaa ngi def lu tax ñi di ko fa gis képp ku nekk ci barab bi war na laa sant war na laa gërëm te lii bokk na ci li sant ci barab bi ndax liñ doon waxtaane lépp li ñu bokk na ci li nga xam ne moo ko sañcoon kon nag ñi nga xam ne ñoo ko taxawee di jëmal suñu mamadam ak mboolem ñi leen ci jàppale ñëpp ak mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew ci ay mbokk te ma ne su leen a dañuy war a teew ñëpp teew nañ ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan li suñ borom digle dige ci ku teewee ku woo ji wooteeb lislaam ak ku teewee jotaayeb lislaam la ca suñ borom dige lépp yàlla suñ borom defal na ko di sant it sëriñ xalit mii ak sëriñ Ahmadu ñu doon def waxtaan wi te defe ko ci anam ngoo xam ne wax dëgg yàlla mucc na ayib sell na ku ci bëgg a jariñu mën nga cee jariñu waxtaan nag ki koy def moom lay tax ñu mën caa jariñu lay aju la ci ëpp lenn la ci moom la aju waaye la ca desit day aju ci ki koy diglu ndax diglu waxtaan dafa mel ni rek kuy root ci ab kuy root ci ab teen nag dafa aajowoo ñetti jumtuwaay yoo xam ne bu ci nekk dana ko dimbale benn bi mooy ndab la muy sotti la muy root ak jumtuwaay ba mu koy tànqe ak la nga xam ne moom la koy segge ba lam ca bëggutu yóbbaale ko yóbbaale mu mel ni ndab li mooy xol bi muy taatam lii jóge ci kàddu yi nga xam ne mooy jóge ci kiy wax waaye xel mi waaye noppi yi moo koy moo moo koy jël waaye xel mi moo koy segg ba téye la mu war a téye la mu warul a téye mu delloo ko kon yàlla yàlla def ci nun loolu ba li ñu war a déggee ci waxtaan lépp ñu dégg ko ci ndax li ñu doon waxtaane dafa doon loo xam ne mënuloo ñàkk ñu waxtaane ko ndax doomu aadama ci boppam moo lépp a am lu yàlla bind lu nekk rek dafa am nu mu ko bëggee am nu mu ko sàkkee am nu mu ko tëralee loola nag léeg-léeg day soppiku di doxee ci weneen doxit ngir ay jeexit yu bàyyi ko ci jëmm jooju wala mu bàyyi ko ci jeneen jëmm di dem ci jëmm jooju kon nag mënula ñàkk nag ñu am loo xam ne si ne mooy jàkkaarloo ak jeexit yooyu di ko di ko di ko faxas ba te gi yàlla sàkkaale woon ndax yàlla moom sàkkut lu ñaaw sa sa sa sàkkut lu bon inna laa tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiban lal sax yàlla sàkkut safaan waaye nag doomu aadama ci càgganteem wala boog ci pexe mooy mooy gàkkal mbir wala mu def ci lu dul noonu waaye nag su amee ñu taxaw di ko fopp ak di ko setal bu yàggee rek xëy na mën naa delluwaat mel ci na meloon te xol bi bàyyi ko ci suñu borom bàyyi ko ci fees dell ak ak leer ba tax suñu borom dëkkaleen ko ci àjjana bu ko bu dellu see fii war a delluwaat te war a waat melawoo mu fa jëlewoon war mooy tax mën faa demaat kon lay tax nag loola mën a nekk mooy la koy fopp di ko xacc di ko di ko di ko sellal ba tax mën caa dem loola dara ëpp ko solo te loolu te loolu mooy li ñu doon ndax euh, day mel ni mënu la ñàkk mënu la ñàkk jumtukaay yi ñu jëfandikoo sax am na lu ci war a nekk loo xam ne bu ci nekkul kenn ko mën a jëfandikoo jur gi ñu yor am na ci loolu bu ci nekkul kenn ko mën a jëfandikoo doomu aadama yi tamit noonu lañ mel kon lii tax nag ñu mën a jariñoo doomu aadama mu mën a jariñ boppam mën a delluwaat ci suñu borom nekk ku am njariñ loolu mooy li ñu doon waxtaane mooy jikko ju rafet mooy jikko ju rafet kon ni ñu ko waxee ak ni ko leerale dara luñ koy amu ca waaye ñu xam la ne rek ñu dégg giñ ci war a am noonu ñu am ko ci te te jariñoo ko yàlla na ko suñu borom tawfiixal kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, fàttewuñu kenn muy njawt suñu Mahmadan gépp muy taalibe yi muy ñëpp rek ndax lii ñu ko yëkkati mooy sët yi waaye ñëpp ci jàpp kon ñoom ñëpp ci turu sëñ bi ñu ngi leen sant leen gërëm te ñaan yàlla subhaanahu wa la euh, li ñu yaakaar ci barab bi te jëmbatoon ko fi te sëñ Tuubaa ci boppam defoon ko fi borom daal wax dinañ ko sàmm doon ko sàmmaloo suñu waay ji ba masul suñu loxo ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala tawfeexal nu ba sàmm boobee bu mu ruur mukk ci loxo yi ñëwatu suñu Mamadou asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu